Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. askanu senegal maa ngi leen di siyaar man Fallou Mbaye Touba ko ku ne si turam santam leen baal xaq leen baal xaq di def ben video di sédélo Sénégalais yépp ci Abdou Karim Gueye nitu deug bi nga xamni ni nañ ko tay lañ ko don atté né dañ ko dañ ko wara tej ñetti weer ñetti weer lañ ko condamné moom lañ ko téye Euh, ñu ciy artu nag di di ci wax ak Sénégalais yëpp ñu nekk seede ci lii lii xew ci Abdou Karim Gueye Abdou Karim Gueye kenn ku ne xam ne ne euh, yàggul dara rek demoon a Allemagne faju ji ngir jàngoro bu ko daloon dafa feebar ngir tawat bu ko daaneeloon Abdou Karim Gueye bi mu ñëweek léegi boo xoolee daanaka ñetti weer si lay toll sa daanaka bi mu jógee Allemagne di ñëw dafa tane rek mën nga ne wérul opéré nañ ko lu toll ñeenti yoon ñeenti yoon def na ko opération moom Abdou Karim Gueye ba nii nii daanaka ñuy waxee yéen man na ne wérul dëgg dëgg dëgg xëy na ak jàmbaaram ak jomam ak nekk gor nekk bañkat ak bëgg senegal moo tax muy sonn saa su ne di wax di sensibiliser di yee askan bi ak di xeexal diine bi saa su ne tey ku mel noonu lëntee tey wax loo maanaam wax gis-gisam ci senegal taxawu diine bi xeexal diine bi tey ci lañ ko téye ne dañ ko war a tëj ñetti weer loolu nag damay artu Macky Sall ak juge yi nga xam ne maanaam ñi nga xam ne ñoo ko àtt tëj ko loolu teg ko daan boobu naa leen Abdou Karim Gueye wérul benn naa leen def na ñeenti opération ñaar ñetteel bi li ngeen ko téye tegu leen ko fenn ci tooñaan ngeen ko téye ak jaay doole ñett loolu nag sénégalais ñoo ci def seede waaye ñun ñi nga xam ne nag mbir mi jaral nañu wallahi duñ ko seetaanee noonu duñ ko seetaanee noonu mukk mu yomb bu ngeen jàppee ne Abdou Karim Gueye benn waay la rek dangeen ngeen di jëm jël rek tëj. muy mu seddee noonu mu yombee noonu loolu ngeen jàpp wallahi loolu du am moo tax pare leen lépp waaj leen lépp xam ne ñun moom Abdou Karim géey mu nekk ci kaso bi ci sababu tooñaange jaay ko doole loolu jaral nañu lu ne li ci gën a néew nag mooy ay kaso li ci gën a néew mooy tëj kaso kon jàpp leen ne Abdou Karim Gueye maanaam sandar ga école bu bim bim téré teree bobu lañ ko japp mu am ci kasso bi yakana lu tolok ñaari fan bim génné la ko jangoro bi daaneel feebar bi am sax ñu ñu dem bané sax dañ ko posone fofu légui ñuy dox muy faju di faju ba yalla may ko tané muy tané nank nank ci biir tané muy faju légui seen ko bëgg jëlaté li nan ñu lay giñum dëmb ngay ngay ngay ngay siñoo yeeli liir lolu ngeen bëgg def yeen motax lepp lu ko ok lu ko xuri ci diir bi mu nekk ci kasso bi ni ni ni la wax fan yi mu fi nekk lepp lo xamne ok nako wala mu xuri ko yene responsable yéen la yene ko gaddu sa bu ngeen jàpp dana ko seetaan mu yomé nun li nga xamne mo fi jëlé ci antu job ñu melni ray ci antu job ñu melni tëj Omar boo leen Jóob rey ko ñu mel ni yéen tëj mu du ba mu gumba mu xëy am daanaka tuuti ñu génne ko ay euh, at yu néew mu fàttu yéen yéen a wëlbatikuwaat bëgg def nii tey Abdou Karim Gueye loolu ma ne du yomb ma ne loolu duñ ko seetaan ndax li woon dafa woon di ngeen xam ne dara umpeetul léegi dara dara umpeetul Sénégal léegi ci àdduna bi dara umpeetul moo tax lii du jàll. bay bo ngeen delu ginnaw bis bu ngeen wul ginnaw wallahi yag yag li met ci yeen lay manam li toy ci yeen lay jógee dana met torop ci yeen motax ma ngi leen artu ma ngi leen artu tëj ngeen ku tawat ñu leen ñaaw ndort naan yéen ko yéen ko posone di ñaaw ndort ci yeen ngeen wat ne nañ ko jekkale dem yobbu kasso ne da ngeen koy tëj ñett wer sa dir bobu mi ngi and ak febar mi ngi febar opé def opération ñent yoon kooku ngeen tee tey kooku ngeen tee tey wax ji nag du bëri vidéo bu gàtt lay doon waaye lii artu la rek pour Sénégalais yi def ci ñoom seede ak ñoom ñi nga xam ne ñoo ñoo ko téye ñoom asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu